yu Cissé ak ki nga xam ne porte parole bu pays bi di al imam Mohammed al Mahi Ali Cissé di ziyaara itam mboolem ñi nga xam ne ñooy abnaa rawatina ñi nga xam ne dundal guddi gi dale ko ci wakili daadin muy baba Mohamed El Amin ba ci Cheikh Mohamed Al Makki ñu ngi leen di ziare di tabb ci ñoom di ndokkeel ki nga xam ne nag mooy borom mbaar mu jekk mi di Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu nga xam ne soo toogee fii di wax da ngay yëg am sentiment boo xam ne da nga xaw a am tuuti complexité ci wax ci mbaron mbaaram mi ndax li fi daan bëbbal ci ay xam-xam euh, ñaaral bi mooy ñu ngi sant kilifa gi nga xam ne moo jiite euh, commission culturelle bi nga xam ne ñoo ñu jox occasion bi ñu ngi koy sant muy Cheikh mohammed Siraj Din Ibrahima Niass

moom la am dama ko aborder ci benn façon mooy dama def benn introduction koo xam ne danaa ci wane ne jikko ju rafet moo tax a jóg lislaam lislaam jikko rek la xana legi moñu mo taxa jóg dinem ji yónni gi ko yàlla yónni daf ko yónni uniquement comme nim ko waxe ci benn xadis ne innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq dañ ma yónni uniquement pour ma motali jikko yu rafet moy jikko yu rafet amon na fi dalewul ci mom gis nga nim réalisté maa fi ay jikko amna ñu fi tàmbali won di def lu baax waye nak dana ñëw man mottali bam mat lolu moko taxa tax a jóg innama bu ñep xam nañ ko limi firi ci ñu deg lak ko arab am solo motax mané euh wa iza xasunat al akhlaq taraqat al umma ila aqsa ma yumkin an yasila ilayhi al insanu min ar wan numu wa iza fasudat al akhlaq fi al umma فسنتخلف الى ابعد ما يكون ان يتخلف الى الانسان من الانحطاط والتاخر أه، دم ادم ولا ناسيون بوم مندي دون جيكو رك مولين في مولين فباي سن رافاتلي جيكو يي دانن ام كي بروسبيريتي اك افانسمون اك ديفلوبمون لو خامني كين مسوكو ام su fekkee ne respecté nañ jikko yegg kon nation bu mu mën a doon li lay yóbbu mooy jikko ju rafet rek looloo tax yonent bi saa sam ne moom jikko ko tax a jóg kon jikko yi euh, lu am solo la lu war lu ñu war a itteew la moo tax ma ne yàlla na yàlla yërëm euh, shaa'ir niil ولا بلا ناحي شاعر كنانة أمير الشعراء أحمد شوقي بمي وحنا وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت وإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ننسي أبو منديرا آه، لكوفا باي يجيكو يرفدي بجيكو

lu may jikko yu rafet te mooy dañoo yaru Seydina Saad ibn Hisham saxaaba yont bi la laaj na soxnaam mooy Sayyidatuna Aïcha di ko laaj ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yan moo doon ay jikkoom yan jikko la amoon jàng naa ko de mu ne ko kaana xuluquhu alquran yonent bi jikkoom alquran la mooy li ñeen ñuy wax ne كان القرآن يمشي على الأرض. آه، القرآن دلان جو yàlla jël richesse su àddina bi li ci ëpp def ko ci réewu jullit ñi waaye mënuñ dara ay na lañ ay dañuy consommer rek waaw mais mënuñoo produire dara loolu yépp li ko def mooy ñàkk a appliquer jikko yonent bi sallallahu alayhi ak njàngaleem di boddante ci suñu biir di xeex di xëccoo ci ay yoo xam ne yu suufe la yoo xam ne war nañ ko dépasser kon loolu mooy may noon bi mam am doole ci suñ kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñëpp xamoon nañ ko. Euh, ci gamu gi Orange Money def na comme ni ko daan defé di ànd ak client yi ñu comme ni ñu ko won daw bir biir euh, Tiwaawan ak Kaolack sampaat nañu ñetti waañ si dëkk diine bu nekk ngir ànd ak yéen yaatal liggéey ca Kaolack ànd nañu ak molok taalibe yi nekk mi dina bàyyi norom ak jalañ ci Tiwaawan tamit. jikkoom yi da koo juddwaale duut lo xamné dafa dem ba révélation bi ñew mu soog a baax comme niko ñen ñi di prétendre bëgg wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh wax yi moko défar wayé euh waaye nit nit la won comme ñep lolu njumte bu reey la ci ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa euh ñëw rek mat waaw yàlla da ko matal jikko yu rafet yoyu wa Màkka ñoko sédé seede nañ ba diko tuddé al amin Muhammad al amin Mouhamed la Sûr moom lañ ko daan tuddee ndax jikko ju rafet ñu xam ci moom ak njubam keroog bi nga xamee ne ñu ngi koy génnee euh, muy jógee Makka di dem Medina paradoxe la mu faaraqa kabira ñoom ñu ko topp ba naan ku ko indi ko ñu jox la téeméeri gëléem moo xam dee na moo xam du mu ngi dund na ñooñu liñ baax la yépp keroog ci Makka mu ngi fanaan ci néeg yonent bi sallallahu alayhi wa maanaam seen or ak seen wurus ak seen aalis ak li am yépp moom lañ ko dénk loolu laay ne paradoxe la paradoxe la waaw yow nit ki yaa ngi koy traqué ne su ngeen ko jàppee rey leen ko te li nga am yépp moom ko moom nga ko dénk wóoluwoo kenn wóoluwoo sa benn mbokk yéen wóoluwantew leen kooku mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon kon jikko yi baax yi daf ko meloo am na bis mu ne leen waaw su ma leen waxoon ne ci gannaaw xurmàkke yi am na ay cavalier yoo xam ne ñu ngi ñëw pour conquérir Makka ndax da ngeen ma gëm ñu ne ko dañ la gëm bu baax ndax yow loo wax dëgg la mosu ñoo nattu ci yow lu may dëgg kon loolu mooy dëgg yàlla daf ko baaxal euh, avant tout waaye ba mu leen waxee ne leen nag euh, yàllaa ma yoon yónni loolu lañ mënta dégg kon yonent bi sallallahu alayhi mooy mooy kooku nekk nit ko am yërmande alquran وحنكو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كوكو القرآن موكو وقتي كيموم أه، القرآن موكو وقتي ينتبه صلى الله عليه وسلم أه، من يوتي جيكو ينغا خمنا أه جيكو يرفع دينغا خمنا يالا ماينا كوكو تي comportement bi mu daan am bu nekkee ci en temps de guerre nga xam ne lu jara jël la jamono bi li tax ma jël ko parce que dañoo nekk ci jamono boo xam ne euh, tey ñu ngi sonal jullit ñi ñu ngi leen sonal fële ci Palestine Israël di leen xëpp sawara ak weñ suba ngoon respecté wul benn norme euh, accord yi nga xam ne àddina bi ñoo ko tëral tëral ko ni kuy guerre ni nga war a guerre respecté wu ci dara àddina yëpp nag ànd ak ñoom ci loolu euh, loolu moo tax ma wax yonent bi sallallahu alayhi moom nan la gisee woon guerre euh, nekk ci minorité nekk ci minorité jàngal nit ñi nan la ñuy nekkee minorité mooy dafa muñ nangu ñu lor ko jéemul défendre boppam jéemul xeex jéemul def dara fukki at ak ñett def na ko ci mag lépp luy coono yonent bi sallallahu alayhi wa dund na ko foofu waaye mu muñ euh, ba mu dem Medina bi mu demee Medina la am pouvoir taxawal cité état ku am euh, formé benn armée boo xam ne am na doole ci la commencé nag def li ñuy tuddee al xurub al te mooy guerre préventive mooy lan loolu self defence rek la mooy défendre boppam mooy gis na ne yaa ngi koy waajal mu tëb njëkk dal ci sa kaw loolu moo indi badar xeex am nga gis ne sallallahu alayhi wa sallam euh, xeexam yépp comme ni ko Baye waxee mës ta nekk def lenn lu may défendre bopam waaw ci xandax difa rek la mos a nekk maanaam défendre bopam rek mais du jóg mukk di attaquer ay nit def ko ci kaw bëgg a xeex noonu la nekké mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ko Medina euh nek ko Medina yàlla def mu am doole comme nima ko waxé ba taxawal état bobu xe xare badar am gannaaw gi yeneen xare am waaye ànd ak yooyu yëpp xare su jotaan am na num leen waajalee d'abord lim mu leen njëkk a wax mooy euh, accord boo xam ne signé woon ngeen ko ak benn tribu ci tribu arab yi te mooy giiri arab yi accord boobu nangeen ko respecté ba am na giir gu ñuy wax Juhayna bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dem di dem Badr romb na leen ñoo ñu daf leen a bàyyi ci jàmm lu tax parce que dafa signé woon ñoom ay accord yonent bi noonu la daan digal ñi nga xam ne mooy mooy mooy mooy taalibeem yi muy saxaaba yi waaye bokk na ci lim leen daan digal bu ñu nekkee ci guerre mooy bu ñu rey nitu diine te mooy buñu ñu rey benn abe boo xam ne jël arme di xeex waaw nitu diine daf koo respecté woon lu tax dafa respecté dafa bëgg diine moom diine ko tax a jóg moom moo tax mu ne leen képp koo xam ci diine lay nekk su fekkee ne jëlut arme di leen xeex bu leen ko xeex nangeen ko respecté ñaareel bi mooy du ngeen rey xale bu ngeen demee bu leen rey xale bu leen rey itam euh, euh, jigéen bu leen rey jigéen te bu leen wor même bu fekkee noon bi la noon bi yéefar la sax bu leen ko wor maanaam lépp loo signé accord bu ngeen signé ak ñoom rek na ngeen ko respecté su ñëwee ba am jekku leen ba am ñu ngeen rey ci ñoom itam seen jëm yi bu leen ci fo mooy li Israël di def waaw jël ay corps di ko traîner gannaaw boo xam ne kooku dee na xam nga ko ku lâche moo koy def nit ku lâche mooy loolu nit koo xam ne roo nekkatul ci moom nga di ko fooyee di fooyee jëmmam loolu nit courage moo koy def loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan aaye jullit ñi waaw moo tax mu ne naha an adami an an an qatli shuyuuqi wal ajaa'iz wa nisaa fa qaala wala taqtulu shaykhan faaniyan wala tiflan wala saghiran wala imra'atan mooy li ma waxoon léegi ñooñu ne ne buñ leen rey Abdullah ibn Abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu daan yóbbu ne nit ñi ci guerre

Euh, service yi ñoom ñu ngi koy jëfee di ko def ci kaw jullit ñi ñooñu njàngale mu bon moom lañu ñu jàngale ma malheureusement nag gis-gis boobu nekkatul ci jullit ñi ñi fi mu toll nii ñoom respecté wu ñu jigéen loolu bokk na ci li ñu tardeel ñun boo gisee Euh, Occident raw ñu ci lu bari parce que dañoo respecté jigéen te respect boobu islaam moo ko jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ku leen daan da di déglu seeni ndigal di leen di euh, déglu keroog bi nga xamee ne mu ngi def euh, sulxul Udaybiya te mooy bi mu jógee war a dugg Màkka dik ko saaba yi na leen da ngeen dem màkka yàlla wax na ma da ngeen fa dem da ngeen euh, dugg ci masjidil haram ñu ñëw bay dugg si problème am ñu signé ay accord ñu ne ko da ngay dellu loolu naqari saaba yi mënuñ ko dégg yonent bi génn wax leen wax wax mënu nangu mënuñoo dégg nangu ñoo dégg loolu ne yaa ñu ko waxoon mu ne ah maa leen ko waxoon de mais dama leen waxoon ne euh, waxuma leen woon ne ren lay doon waaw maa leen ko waxoon mais waxuma loon ne ren ngeen di dugg màkka ba yëf yi nga xawee kii ay bëgg a gën a jafeel dafa dugg ci biir bergenne bi waxtaan ak soxnaan su ñuy wax umu salama sayyidatna umu salama ne ko boo génnee bul waxat ak bul waxaat ak ñoom da ngay génn rek nga loj sa géléem nga wattu soo ko defee rek ñu def ko ba mu génnee loj géléemam euh, wattu ñépp daal di wattu def la def la mu def kalaat bu rafet boobu jigéen ju moo ko ko jox moo tax ma ne moom ku daan déglu jigéen ñi la jox leen gëdd fonk leen euh, daan muñ itam li nga xam ne day xew ci kër yi yépp muy fiiraangeeg jigéen ak seeni problème seen benke ñenke ku ko daan ku ko daan muñ la am na bis sayyidatuna Aïcha moo aye yonent bi nekk ci néegam euh, sayyidatuna ummu salama togg togg goo xam ne yonent bi da koo bëgg mu yakkal ko joxe ko ne dem leen yóbbu ko ko fa mu nekk xam nga loolu benn jigéen du ko nangu ba léegi waaw kenn du leen ci yedd damay wax ne jigéen ñi kenn du leen yedd ci fiiraange li tax duñ leen di yedd mooy nañ jël place su jigéen ñi ñu teg fa góor ñi léegi jigéen ñi di am ay jëkkër yu bari ñu xool loolu su amoon góor ñi rayante la ñuy def rayante la ñuy def bu boobaa ñoom waaw duñu yem ci ay fiiraange mais dañuy reyante kon nag loolu war naa tax ñu mën leen a pardonner loolu loolu nag moo xew ci kër yonent bi nga aye sa wujju di yàqal sa jab sa sa sa sa boroom kër la ñëw rek bañ indee bool bi rek Sayyidatuna Aïcha tëb euh, mbëkk bool bi mu mu daanu ci suuf bool bi tasaaroo def ay gaal yonent bi for lekk gi euh, defar ko ba mu baax ne xale yi te ngeen muñ seen ndey day dafa fiir rek waaw muñ leen de seen yaay dafa fiir de loolu la ci teg bu doon am na ñu mu doon tey saaga la ñuy def wala ñu wax wax ju ñaaw wala ñu wane seen mer mais yonent bi merut daf na dafa dafa noppi ne jigéen xale yi ci kër gi muñ leen seen yaay dafa fiir rek daal di jël nag ci biir kër gi jël ci dab dabi Sayyidatuna Aïcha yi dab bu baax jox ko ko indi woon yëfi ne ko demal nga delloo ko ndabam maanaam yàq euh, réparé na li soxna si def delloo ko ndab li euh, muñ li nga xam ne moom la soxna si def ci ci kër gi gis nga kon ni mu doon comporté woo ak ñoom kon noonu la doon comporté woo ak soxnaam yi comportement bu rafet la am na ci ay kii yu bari yoo xam ne du neexalaal bokk na ci nekkoon ku respecté woon jigéen ñi bi maanaam am kóllëre ci ñoom am wafa waaw mooy am wafa am kóllëre lu jafe la ci góor góor ñi di ci ëpp amuñ kóllëre ci jigéen waaw jigéen moo ëpp kóllëre ci góor moom dalay bàyyi nga dem fu nekk boo ñëwee mu accepté la góor nag du def loolu waaw Eh, yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moom dafa amoon kóllëre te kóllëre googu mu ngi ko doon wan mu ngi ko doon wane ci soxnaam si ñaan wax Xadija Sayyidatuna Xadija génn na àdduna lu yàgg ndey Aïcha mooy nettali nee na yonent bi da daan saa bu ñu reyee xar day tib jël lu bari ci ndawal gi ne yóbbul leen ma ko ci xaritu Xadija yi ngeen jox ko ko maanaam am kóllëre ba mu jógee fu mu am kóllëre ci moom kooku noonu la meloon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, ku respecté woon jigéen la waaye amul foofu du waa këram rek ak njabootam am na bi seen jigéen ñëw bi mu ñëwee ne ko dama laa soxla dama bëgg ñu weet ma wax la li ma lay wax maanaam dama laa soxla da ko fekk ci biir nit ñi ne ko dama laa soxla ñëwal ma wax la xam nga loolu tey soo ko defoon benn kilifa ñëw fekk ko ci biir taalibe bi ne ko jógal ñu ma wax ak yow ci koo xam ne mosoo ko gis boo moytuwut mbir mi dana demé nenen mais yonent bi demeewul nen yonent bi daf nako ko ixtaari ay sikak shi'ti ikhtari ay sikak shi'ti aqdi hajatak setal fula la neex nga taxaw fa ma ñëw fekk la fa fajo sallallahu alayhi wasallam sallam jóg ak darajaam ju mag jooju fekk ndaw sa fam taxaw mu waxtaan ak mom fajal ko aajoom ndaw sa dem koku yonent yàlla Muhammad def nako sallallahu alayhi wasallam euh lutax mom mo moo wax ne xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli euh ki gën ci yéen moy ki gën ci wa këram man ma gën ci sama wa kër dana wax tam ne istawsu bi nisaai xayran dana wax ne ma akramahunna illa karimun wala ahanahunna illa laim de len wax lu bax ci jigen ñi te jigen ñi kep ko xamne ku bax la moo leen di teral waaye ku bon moo leen di toroxal maanaam góor goo gis muy toroxal jigéen rek du góor gu baax góor gu baax day teraxal day day teral ay jigéen loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale nga ñëw ci xale xale ku ko fonkoon la ku ko respecté la am ci benn melokaan boo xam ne nag bu raar bu mu daan jëfandikoo ñoom te mooy wàccee darajaam sippi darajaam ci ganam xale ben da dan nuyu xale Seydina Anas moko netali nettali nee na bi sallallahu alayhi wasallam bu romban xale yi day wàññ legi kalifa yi bari eppal nañu seen bopp loolu rarement nga gis kalifa gu romb ay xale len nuyu limi xaar moy xale yi jóg nuyu ko yonent bi dawul def nonu daf lay romb jox la sa gëdda ak lo don don xale non la fonké won xale Abdullah ibn Abbas netalina batay momitam tey dafa tok ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam booba xale la xam nga Abdullah ibn Abbas ñi ne nañ fukki at lam bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di génn adina ñi ne fukki at ak ñent lam lu ci man am xale bu ndaw la won euh neena dafa tok ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fete ko ndey jor na kilifa yi yi ci dess yenen sahaba yi magi fete chamoy ñu andi li yaronte bi ak naan yaronte bi commencé naan bi wi naan naan ba pare war koo jox moom mi nekk ci ndeyjooram gis na xale la mu ñaan ko ne ko waaw do danga doo ma may ma jox mag ñi ba pare soog laa jox Abdullah ibn baas ne ko mukk duma def loolu euh, ma loolu kon loolu la Abdullah ibn Abbas euh, wax ne ko maanaa sa ndesit lii duma ko bàyyee gaañ yi kon loolu la ko la ko wax ma bàyyi bunt boobu tëj bunt bu mujj bi mooy ni meloon ak ñi nga xam ne duñ jullit loolu moom euh, respecté woon na ñi nga xam ne ay kufaar makka la te mooy yéefar yi nekkoon makka nekk na ci seen biir respecté leen laata ñu ko yàlla di ko yónni ak gannaaw bu ko yàlla yónnee jikko bu rafet la nekkoon ak ñoom waaye bi mu ñëwee Medina itam jikko bu rafet la fa nekkee ak ñi nga xam ne ay non musulman lañ surtout nag juif yi ndax juif yi boobu ñoo yore Medina ñoo fa nekk. muy jëflanteeg ñoom bi muy génn àddina moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbubbu koŋam mi mu ko tayle ci ñeen fukki euh, ñeen fukki kilo wala fanweeri kilo ci ci ci bele waaw fanweeri kilo bele moom la taylee mbubbu koŋam moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy daf leen respecté woon di jëflanteeg ñoom ci wàllu business waaye itam noonu la doon jëflanteek ñoom euh, ci lépp euh, wasiqa Medina te mooy pacte bi mu signé woon ak ñoom ñoom ñoo ko mujj rompre loolu moo tax mu génnee leen Medina respecté na leen euh, muy yahud yi fa nekkoon boo demee ci ñi nga xam ne ay nasaraan lañ te mooy nasaraan yi moom laay tëjee benn wafdu boo xam ne ñu ngi jóge woon euh, Najaraan nekkoon benn mission catholique doon ñëw di négocier ak moom sallallahu alayhi wa bi ñëwee seen heure messe jot jot daf na leen def leen ko fii ci sama biir jàkka ji dama ne tey képp ku defoon loolu invité benn abbé wala benn curé mu ñëw def mees ci sa jàkka jàkka jooju kenn dootu fa julli loolu mooy ne julli ñi dañoo seen xel yi dafa dellu gannaaw kon yonent noonu la nekkee woon ak ñooñu euh, mu wuute lool nag ak loo euh, benn xew-xew boo xam ne mu ngi xew ci France du ma ko dama koy wax toujours euh, mooy abbé bu ñu doon wax Jacques amel ñëpp xam ko mu nekkoon Rouen ci.

ki nga xam ne moo dagg euh, église may leen ko pour ñu fay jullee euh, kooku mooy Jacques Amel ma ne ñu wuute nañ ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa bi nii la nekkee woon ak euh, chrétiens yi ormal ak doomu aadama yi yëpp foofu laay tëjee di ñaan yàlla yàlla dimbale suñ mbokk yi nga xam ne ñu nga ci Palestine ak ña nekk ca jaamu Kashmir di ñaan yàlla ñu fekke gàmm gi ay addu bari encore une fois ñuy sante lujna luj bi nga xamne ño organiser li ño ñu jox occasion bi pour ñu waxtaan ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne wa kullu amin wa antum bi alf khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh